war nañoo maye loolu wala mën a wax ndax li tax duñ ci mën a wax koy def ku ne sa mbokk lay doon ku koy def sa mbokk lay doon doo ko mën yoon mooy def liggéey yoon bi nga xam ne dangaa moom sa place mundu place nga am droit ale waaye ab tëj kenn mënu pertuwaal boo ko doon xool nii boo xoolee niñ ko commencé waa def li sax moo gën a dimbali marché bi mooy karo yi yi ñu ci commencé def nii paas yi waaw moo dimbaliwaat marché ba mu dundaat nii waaye fii booy dem doo jaar man bu ma yoree sama oto du ma aw nii. yi tamit euh, Pawas taabal moom jamais ñëpp dox nañ ci loolu la pare waaye lii rafetul man fee di am naa fa place. Ah? fee di tàkk am naa fa place waaye dama ko luyee. moom lan lan la ay ay ay jaay ñëw ay kay affaire yooyu. man maa moom est nga ñu gën a dikkal ci place yooyu li fi ëpp ci marchandise yi fi nekk lan la. ay tissu la tissu. ay tissu ay fer. mooy yom ñu ñi ëpp lu ñuy jaay tissu la fer la ay tissu yu jigéen ñi di ñaw wax moo am côté bii. lii maire yi jaay ñooy tooge fii ñoo sës ci banque bi li féete na lépp ay marché per la ci ginnaaw fee muy tàkk ne mooy jàkka ji fee ne mooy jàkka ji li ci ginnaaw mooy marché yàpp kon marché bi ñun xam nañ ko mën nañ ko lotise ndax yàgg nañ ko naa lëndëm bi la rek mais waaw boo taxaw uh-huh. moo moo commencé ci pël yi wër nii ci côté banque bi la la fi nuyu mbedd bi boo ci awee fee de mooy jàkk ji léegi ci ginnaaw mooy jàkk ji nekk ci biir waaw jàkk ji yàgg na fi jaay téere yi yàgg na fi waaw yàgg na lool yàgg na fi lii moom kenn xamul fu mu yem sax ndax gis nañu safar si muy gën di avancé ginnaaw la ëpp sax waaw waaw fii moom fii moom xaw naa gim nit ñi ñoo ko bay waaw waaw parce que ndax jeex na te aussi amuñu fi ñaaw jëlaat seen i matuwaay dañoo war a jëlaat seen i matuwaay sapp a sappoor yu baax côté bu ne di ko am ndox du manqué bassin yi defar ko di jariñoo ndox mi waaye ndox moo xam mais loolu tamit soo amee te nit ñi tamit di toog nu mu neexee di def lu leen neex tamit am réew boo ko bëggee rek da nga yemale ñëpp boo yamalee ñëpp rek benn san lépp dana normal bu ñu laa mbedd mi mbeddum la yow ci buur nga bokk ndax saa boo xëyee yaa ngi fay lu fa jëm yaa ngi waaye mbedd mi mbeddum la nga ñëw teg sa taabal ne da ngay jaay wut pour bénéfice di lor ñeneen lool àq la doomu aadama daa war a xool li avancé bu waaye lii saa buñ liggéey ay deux cent trois cent lakk ñëwaat te bu ñu xoolee dafa mel ni marché bi léegi boo xoolee bari na ñi ci ëpp daanaka euh, wut rek moo leen fi andi dëkkuñu ah, waaw xooluñu lu baax ci dëkk bi wala lu bon ci dëkk tamit dafa mat a jëlee xooluñu avancement te loolu dafi bari léegi yor sa cent mille taxaw ji voilà ñëw jóge feneen ñëw voilà euh, euh, jël na ni teg say table teg say affaire euh, nga xam ne amaana sax la doon nag boo doo ci bañ a xeex doo ci bañ a voilà voilà te am na ñoo xam ne buñ jaayee bu ngoonee voilà ñi si mbedd bëri nañu seen marchandise du fi fanaan daanaka lakk boo amee tamit seen ay table dañuy dem te bu ndàmpaay ñëwee bu ndàmpaay ñëwee dañuy laaj seen wàll dañuy loolu moo fi gën a garaaw daanaka ñii eh, li nga xam ne mooy table yi seen i borom dara nekk fi dara nekk fi dara nekk fi dara nekk fi ay table kese moo fi fanaan lu ci gën a bari xañ na nag du ñàkk ay benn benn mais li fi ëpp ay table kese kese la dañ koy dénkaane ay dépôt yi waaw ay dépôt yu nekk ci marché bi foofu lañ koy yóbbu nga xam ne Euh, ñi fi lorule ñàkk seen alal moom euh, ay milliards la wala ay millions dañuy mën a dugg dañuy mën a dugg tamit si bi ngeen di seetaan en direct euh, mbir mi daal lu mat a jël ay matuwaay la ndax nag jóge ci àll ba naam nit ku ne foo mën a dëkk te liggéey rek tax laa jóg war ngaa mën a liggéey waaye nag nga teg ko ci yoon nga teg ko ci yoon waaye jóge fële xooloolu taaru ci dëkk bi xooloolu jekk ci dëkk bi xooloolu jaaru ci dëkk bi yow daal amal sa ay dërëm yóbbu fa ngay yóbbu euh, xooloo luy defar xooloo yàq loolu yaakaar naa euh, amul njariñ euh, kon kilifa yi nañu jël seen ay responsabilité ndax nag mbir moom boo ragalee rek yaakaar naa ne doo ko teg ci yoon yëf nag ñu gën di garaaw ndax fi mu ne nii gis nga xale yi xëy nañu placé leen bu feyee tamit xam nañ ne lam fay bàyyi ci ay yàqu-yàqu moom bàyyi na ko fa waaye mbir yaa ngi gën a avancé non dina jafe dina jafe naa li ci doon li doon jafe li ci doon jafe li ci doon gëna a xaw a rek ci sunu xalaat euh, moo di rek xañ na dem ca côté euh, jàkka ja muy jàkka ji nekk ci biir marché Ocass euh, comme foofu kon am na benn espace boo xam ne ni vide la dinañ fa mën a jaar mën a dogale safara si xañ na loolu buñ ko defoon euh, xañ na xañ na doon na mën a euh, dana mën a dana mën a yombat bi wàll bii nag moom xaw naa giim naam saxaar si moom mu ngi jolleeg doole euh, mu ngi jolli ba mu ngi gën a jolli li muy wane nag mooy que mu ngi lakk ci biir doonte safara si jógut safara si jógul waaye nag saxaar si moom mu ngi mu ngi jóg nu mu gën a bare nu mu gën a yàññee nu mu gën a tare mu lay xamal ne kon ma ngay tàkk ca suuf donte safara sa jógul bu baax a baax lan moo ko téye ndax terrasse yi moo ko téye wala lan man moo ko téye wala xeetu tiis yi ñuy jaay moom mooy tàkk di jënd lu ci mën a am daal ñun mënuñu àgg foofu mënuñu àgg foofu ndax euh, xam rek voilà mu mel ni beneen oto nga wetu euh, euh, mbedd bi génne ci njobentaay seen ngeen ko noonu dañu xaw sori nag ndax suñ diggante ak moom xaw na jege euh, soixante-dix mètres jàpp quatre-vingts mètres daf ñu xaw a sori te fi ñu nekk moom dafa xaw a kowe du ñu mën a du ñu mën a àgg foofu waaye daal. Euh, li wér mooy moom euh, dana jafe ñoom seen a dugg si si dara du fi yomb bi ngeen di seetaan en direct aimé leen abonné leen mu ngi gën di mu ngi gën mu ngi gën di yokku de mu ngi gën di yokku de mu ngi gën di yokku de mu ngi gën di yokku de mu ngi gën di mais mais mais borom lamp ji la fi ñu nekk moom wóor na safara sa la jëm de. voilà euh, fi ne nii heure bi heure bi ban heure moo jot